xam naa dinañu soxla a Mbaye détails yi li muy wax ëpp na ëpp de ay question yu may laaj yu posé ma di ko tontu la waaw te dama fii fii lu ma waaye laaj ci kàttanu yàlla Mbodia Mbaye dana ko tontu waaw eh xoolal ku xam dëgg du laaj loolu li ma gëm dëgg ku xam lépp du laaj soxla Mbodia Mbaye nag dafa taxee benn bunt boo xam la ma leen waxoon rek ci néeg rek xanaa vulgaire Mbodia waxu dara vulgaire damay jàngale eh buy bu tëjul du am li may jàngale bu ko kii xamee kii xamu ko te kee jàng tataam sama jëkkër moom dafa bëgg mbirum weer nga ami weer doo ko jox weer ay <laughs> la laa et eh, lan lu ma a tontuwaay yi dëkk du neex tamit da ngay waxante nii bu bëggee weer jox ko weer nàmp nàmp bonk la neex <laughs> waaw booy nàmpal da ngay du bañ. te du la mat te du la gàcc te la mu soxla la cay def bàyyi leen seen borom kër yi ngeen di andi sens interdit ci biir néeg yi maa lay nampal ba wut keneen ku may nampale lan balee seen borom kër yi di limité dëgg du neex boo ja mbaay bu yeboo mu waaye xoolal lañ ma yóbbu ci vulgaire ma toog fa nag di fa faraax toog nga teg ma fu ma mën nag miis ko ndax jamono ji loo ne ko lii may wax ak ma koy ndax am na xale yoo xam dañoo ñemee werante te dañoo ñemee tamit seen i mbirum yaram góor bu bëggul yaramam yaramu jigéen lan lay bëgg jéeg bi nga takk ànd ko ci biir kër gii su bëggul yaramam seen yaram yi tàll lamp gis sol déguisement yi bàyyi seen jëkkër ñu def leen sax ci seen biir néeg yi loolu mooy téye góor luy ween daa sax ci nit doomu ji ku tax defal ñu ko xanaa du bëggalante <laughs> laa ilaaha illallah lii su ngeen ma koy laaj daf may neex ndax su ma koy tontu damay kontaan damay xam ne xale may déglu xale yaa may bàyyi xel te xale may roy ci may wax wallaay azim dama leen di bëgg nag bu ngeen may laaj yi eh jox ko weer ba mu neex nampalum ponkal ak sangum ponkal amul erreur nampalum ponkal ak sangum ponkal la gën a yomb ci àdduna ndax du bañ te du rasu du màtte du gàjje doo ko jox mu def ca la ko war nga ne fi di yemale sa jëkkër yi fu ngeen di way wut fu ngeen di yem amul limite joxe leen lépp ci biir néeg xale joxe leen lépp ci biir néeg yi biir néegu sëy namp fa lu ne macc fa lu ne fa lu ne la la doy te mu neex teew da nga sant ko heure yi tàmbali leen ba mu neex et boo ja bàyyi ngi ñuy toog wallaahi azim lu ma wax lu ma gëmul xale yi daj ci leen biir néeg te di fa sëy du rëy mën a téye seen jëkkëri balee nag lépp luy ween ween luy bégal góor da cee bokkuti da ngeen a fàtte ween lépp lu yaram def ci ñoom ñeent trans dina ñeme combat bi tey bëri xoolal ba yor ci koy Balla Gaye numéro 2 mi nga xam day bàkku di sàllañ kër kàrkala di sa awaas sa xaw sa nga bëri nii la am jekk def waaye dëgg la waaye dinañ bëri ko mbay waaw kay mbaay soxna Mbuuja Mbaay dafa bi nu ma ko tuddee eh, la ilaha illallah ako maa bëgg jéeg bu mën sam ndey dimanche eh, liggéey boo gis dafa am sam ndey dimanche waaye man ceeb ki nga xam ne seen i borom ko dafa si nekk samedi ak dimanche nga war a xëy yenn yaay parce que jëkkër mu ne ko wu ci biir kër gi du xool yéen leen dal am ceeb day mën samedi ak dimanche lépp loo mën di doxi ba samedi ak dimanche ak borom kër yenn ci kër gi mais lan tax toog yow <laughs> ay li may xalaat ci samedi ak dimanche ay li may jàng ci samedi ak dimanche ñëpp ngeen attaay ju am tuuti des nga toog nag am noo toogee di laa nga attaay ji di ko attaay sa borom kër di xool di la sax ndax sam de dimanche bi jar na ko et eh, góor lu ko téye ci kër yomb na parce que Seydina Mouhamed boo ja bàyyi wax ak yéen

dina caméra gis nga góob moo bëgg caay-caay góob sa bopp añ boole ci la tarkala di la taggal say maam di togg di way taasu tarkala su ma toogee nag ba nga xam ne denda yow rek dama dese la toog jàkkaar la ñoom naan aas dagg sa jëkkër du wax wax aas ci loo aas ceeb bi neex na kii aas ah waaye démb yow nga def noo combiné <laughs> bàyyi sa ma ne ko bu ko bàyyi démb la ma la def mu ne yow loo ma def la ma la def ak oram ma ne ko ay li ma la def yow xam nga la nga wax yëpp démb yow démb li nga wax yëpp dégg nga ko mu ne lu ma fi wax danga nga dul fekk gañe ko ko démb ab jeeg day bàkku di fukk dëndam ab jeeg day wane boppam ak jeeg day confirmé tout le temps pour gërëm dama laa bëgg te wàññi cooy sew sawaan yeeg jàppatu laaj bu bari bi ci dëkk-dëkk bi stress bi bari na góor ñi pour il faut ñu dalal seen xel góor ñi pour ñu bëggal leen il faut ñu yemale suñu bëgg-bëgg pour ñu bëggal leen il faut ñu la tekk leen kat yu tax leen bopp tey waxtaan ak tey déewante ak ñoom te di xam mbirum sëñ bi lan la di leen wan ñu doon banday babaay dëkk ci yéen saa yi leen ñu soxlaa ñu ñëw di wéy ci ndigal ba mu neex lii mooy sëy ku ko mittil yaa ko mittil say